màggal bu Touba ak dayo bi mu am tax na ba ndaje mi nga xam ne moom lañ doon amal ci gouvernance bu Diourbel di CRD bi yàggoon na lool ñu doon waxtaanee mbooleem ponk yi nga xam ne jëm na ci organisation màggal gi. li dale ci kaaraange gi dem beeg dikk bi courant ndox mi ak lépp loo xam ne màggal gi mënu ko ñàkk waxtaanee nañ ko ba jël ci ay matuwaay. màggal Touba gu ren gi nag dana laal ci nawet bi ak taataa yi loolee lépp gouverneur ne daañ ci jël ay matuwaay. li ñu mën a jàpp daal mooy kenn ku ñoom kenn ku nekk ci ñoom dina góorgóorlu ba benn yoon du fatt yoon wu ne oto caa jaar loolu nag soxal nañu lool ndax dafa bari ay jeexital ci circulation bi ci sécurité bi ci ndox meeg ci lépp donc loolu la ñuy ñaan yàlla waa góor góorgóorlu ci ba site de déversoir yi di dox waaye ñëpp ñi nga xam ne tam war nañ joxe ay hydrocureur ñu jàppale ñu ba nga xam ne benn yoon du fat suñu objectif daal mooy benn yoon du fat néewuñu ne benn yoon bu mu am ndox mais benn yoon du fat ndax am ndox loolu nag am wax naa nañu ci bu baax dinañ ci góorgóorlu màggal bu Tuuba ak mbooloo mu takku mi nga xam ne ñoo fi daje tax ba daan nañ fi nemmeeku ñàkkum ndox loolee lépp gouverneur mi ngi ci dalal xel yi. wàllu ndox mi nit ñi war a jëfandikoo ndax xewu diine la yem ak jamonoy nawet jamonoy nawet daw day tàngaay la aussi te xewu diine lislaam dafa soxla ndox xewu diine foo mu laaj ndox fu nit ñi bari dajeendoo fa tam foo mu soxla ndox loolu ñu ngi ci góor góorlu waaye ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ci taxawee ak entreprise la ñuy liggéeyal ak fournisseurs ya ñu baral seen loxo. ñu baral seen loxo ba nga xam ne li ñu am ci forage lépp di dox mooy Fooba Touba am na benn forage li ñu bëgg mooy bala ñu naan camion citerne bala ñu naan bâche yooyu yëpp ay ndimbal yu war a ñëw dooleeku ci mooy li ñu am d'abord li ñu am lépp mu mën ñëw daal jëriñ mu mën a dox loolu am nañ ci yaakaar te loolu mooy suñu objectif comme ni ma ko waxee ci yoon yi léegi benn yoon ba ne fatt benn yoon waaye forage yëpp tam di dox bu ko defee su ñu amee loolu te yaakaar na dañ ko am ci tànk yi ñu taxaw plan bi nga xam ne évalué nañ ko fii ci salle bii ak OFOR directeur général maa ngi koy gërëm euh, bu ñu doxalee plan d'action yooyu am 100 citernes ak 80 bâche d'eau boole ko waa eaux et yi ñu war a dolli ci ay ay citernes am naa yaakaar ne xëñ na. problème bi bu jeexul tàkk itam dina wàññeeku ku nekk mën jot ci ci ndox mi loolu am nañ ci yaakaar xanaa ngeen ñaanal ñu ci rek yàlla motali ko. comité d'organisation bu màggal Touba gi nga xam ne sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul moo ko jiite ginnaaw bu mu rafetloo matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko moom ñëwaat na ci li nga xamante ni mooy màggal gi ak dayoom. te daa wax ne kuy defaral ñëpp seen bis sa bis mënta waxaale màgget gu xam nañ ne borom koy defaral boppam li ñu ci war nag ñun ñu ko seq mu ñun ñu koy saytu ak yéen ñi ñu ko seqal mooy kenn ku ci ne xool lam jàpp ne mooy tax liggéey bu baax lay tax liggéey bu jot mu def ci yitteem def ci jom def ci posté def ci àll kon gouverneur lii nga wax dégg nañ ko bu baax kon ñu la ci sant ci gërëm di fas yéene tàbbi ci liggéey bi. di xam le màggal gi day ngir mu màgg a màgg ngir wéy ndax xew-xew yu ñu toll bëriwul ci adduna si ndax yi nga ko mën a dëkkale néew na Afrique amul bu ñu toll Sénégal moom amut xew-xew boo xam ne lu mat juróomi million ñu ngi ko ci xayma te at mu jot foo ko natt bu weesu kon boobu xew-xew képp koo xam ne yàlla suñu noonu dogal na mu nekk ci sa biirum réew mu sanal na sab sag la moo xam nga bokk ci yoonu mu moo tax moo xam nga di jullit moo tax moo xam nga dëkk ci réew mi sax te bokkoo ci lislaam kon képp ku fi dëkk rek na xam ne màggal gi sa bisu ndax bisu bu Sëriñ Tuubaa wax ne na ko ñëpp sant la yàlla la ci wàllu nit ñi natt ci xëy ci wàllu koom-koom itam muy jural Sénégal njëriñ yu bëree bëri kon màggal moom rek mooy fête bi nga xam ne réewu Sénégal ñu ci perte waaye la ci gagné kon nag jàpp naa ne dayoo bu ñu ko jox ak yitte yu ñu ko jox rek waris na ko yokk waris na ko jox lu ko ëpp ngir bu fekkente ne bu fekkoonte ne amuloo njëriñ réew mi itam te xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñooy bàyyi ko fu ne ak jullit yi ñëw di màggal si Touba kon loolu mboolem bi ci woon rek warees na ko def rawatina nag muy loo xam ne boo doon xool ci koom-koomu Sénégal wax nañ ko waxati ko kon jërul del si waat waaye amal na njëriñ Sénégal amal na njëriñ kon lépp lu yëkkati def ko ci màggal gi yeyoo na ko ndax ab dayoo moo àgg foofu. màggal bu Touba édition bi fas yéene doon ci mois d'octobre bi comité d'organisation bi ñoom daañu door seeni programme ci mois de septembre bi.